ngeen jëf rafet lu ànd bi ak Equivox TV ginnaaw bi ñu leen a nuyoo dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu koy dooree bu wopp coronavirus tey ci altine bi rek 2099 euh, tests yi ñu jot a réalisé 226 euh, ñoo ci jot a positif ci 226 euh, yooyu noonu rek ñu am ci 111 cas contact 153 cas communautaire de cas importés ak 7 décès. ginnaaw nag bu ko feebar bu yàgg tëralee rek kii di Jean Meïssa Diop daal dina dëddu àdduna rek néegi ni démb ci dimanche bi Jean Meïssa Diop nekkoon ancien wu groupe Walfadjri nekkoon professeur fële ca CESTI di doon jàngale nag ci école de formation yu bëri journaliste yu bëri rek daal di jaar ci ay loxoom groupe Equivox yëpp ñu ngi koy jaale ay mbokkam rek. di ko ñaanal fa mu jëm yal na ko gënal fii mu jóge ñu àddu rek euh, wax ci ki nga xam ne rek moo di jaari Sow nag ginnaaw ba mu bindee rek bataaxalam boobu ne ngeen di démb rek daal dina génnaat ba fi ñuy waxee ak yéen kii di jaari Sow mu ngi ci euh, loxoy gouvernement bu Sénégal bu ñu sukkandikoo rek ci E-Media kii di Diary Sow Euh, consulat bu Sénégal ñoo ko daal di rek euh, localisé fi mu toll nii nag euh, démb rek daal di nañ nemmeeku ki nga xam ne moo di Serigne Mbaye Thiam mu daal di jël avion rek dem wutali fële réewum tugal jaari sow moo ko yóbbu wala déet mu nekk nag ab benn coïncidence ba tey rek ñuy jot ay xibaar rek ci boobu le mbir ki nga xam ne moo di jaari sow rek dafa lànk ne du delluwaat ci école boobu le mu nekkoon dooree rek dem ba Kolda ci quartier bu ñu naan Saare Kéema foofu nag aw tiis la ñu fanaanoo ginnaaw nag kii di du Balde am rek ay at yu toll ci ñaar fukki at ak ñeent moom rek moom rek la fiil daal di maas foofu rek bam ci daal di ñàkk bakkanam li waral bi léegi nag moo di kii di du Balde da doon defar rek wotoom ci noonu ci la pare jël matériel am doon defaree di ko yéegal rek ca porte bagage ba fiil bi daal di ko xëcc rek bam ci ñàkk bakkanam ba tey rek aw tiis moo am fële ca na booy foofu nag ab benn tuut tànk rek boo xam ne amagul sax ñaari at rek moom la lakk-lakk jàpp rek ba ma daal di ñàkk bakkanam li waral bi léejee nag moo di rek yaayam da doon togg ca waañ ba ci noonu rek ci la safara sa dem rek ba néeg ba xale ba nekkoon daal di ko tàkkal rek ba ñàkk ci bakkanam bi jéey bii di am nag kenn nekkul woon rek ci kër googule rek ngir wollu ki nga xam ne moo di tuut tànk bi jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi fi la ñuy yëm ak yéen ci xibaar yi tey di leen jox dig dajee rek bu suba incha allah